bi ñu soxla ci réewu Sénégal ngir ñu mën a amal ab processus électoral bu jaar yoon loole nag moo ñu manquele tension politique bi di gën a yegg te nag ñii di waa Sénat ñoom ñoo ci gën a sonn Alioune Tine président Africa Jom sent jàpp na ne nomination yiñ ci mujj dégg benn ci ñoom jaarul yoon tey nii nga xamee ne tërale nañ ko Sénat bi ak nomination yi nga xam ne def nañ ko ak dàq yi nga xam ne am na ñu ko ci dàq ñu ko tegee yépp vraiment dafa jalgati yoon te loolu bu amee il faut ñu waxtaane ko seet nan la fexe ba nga xam ne dinañu benn indi solution boo xam ne day indiwaat kóolute ci lii nga xam ne mooy processus électoral bi c'est extrêmement important. bokk na ci li gën a indi ñàkkum dal bi ci biir réew mi muy tëj bi ñu tëj université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci di droit de l'homme di xamle ne donte sax war nañu lu acte criminel ya fa am teewul nguur gi warul tëj benn yoon ëtt bi ndax ndaw yi kenn warul leen tere jàng. université dafa nekk sanctuaire boo xam ne aussi dañu war a assurer sécurité lu am solo ñu assurer sécurité ba génn mu am lu teef dañ ko war a defar bu gaaw xale yi dem jàngi kon nag vraiment nañu góor fexe ba nga xam ne lii nga xam ne moom la xale yi bëgg ñu dem jàngi li étudiants yi ñëwee fii ni dañu bugg jàng nañu ubbi euh, euh, lii nga xam ne muy université mais dañ ko war a ubbi waaye bu fekkee ne da nga génn ni yow étudiant nga damay def conférence de presse rek ñu dóor la lacrymogène ay tamit loolu du yoon ak li ci mënti am dal bi moom li koy mën di indi indiwaat ci biir réew mi mooy ab waxtaan bu jaar yoon na ngir mën a amal processus électoral bu mucc ayib ak ay élections yu dal waaye nag loole mënul am filek ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite respecté wuñu charte réew mi.